doon voilà ñàkk bëgg sa réew lay doon muy wàllug euh, assemblée la ca aju euh, mais euh, am leneen tamit bëgg nañ si wax mooy li nga xam ne nii def ma actualité ni ki démb di ay kàddu ki lee di Ismaïla Madior Fall di sa professeur hmm. voilà sa amee ma ko àllarba de <laughs> waaw nga gis la mu wax foofu ca gannaaw ba moom loon émission ak suñu benn concert di may Maïmouna Ndour Faye euh, ci lu aju ci loi d'amnistie bi ak euh, euh, li nga xam ne ni mooy disparition ñaari gendarme yële. xam na xam na xam naa le mu jur coow. le le militant Ismaïla Madior Fall mesuré wul woon la gravité de ce qu'il avait dit. Hmm. parce que moom sax nee na bàyyiwu ci xel. voilà daf ne loolu c'est couvert par la loi d'amnistie. ne loi bi léegi loi d'amnistie bi lan la. mooy ne fait yi nga xamante ni c'est lié à la politique. Mm-hmm. nan ko effacé. alors bu ne l'affaire euh, Fulbert Sambou et Didier Badji mm-hmm. sont amnistiés donc c'est dire que c'est lié à la politique. Mm-hmm. or le gouvernement à l'époque dafa ne woon. parce que bu ñu fàtte ne après seen disparition procureur ubbi woon na enquête. bi mu ubbee enquête après dañu ne noyade accidentelle la. donc le gouvernement d'alors wax na noyade accidentelle yow nga bàyyi ba yow mi bokkoon ci gouvernement d'alors nga ne politique la en vérité maa xadi il ne s'agit pas d'un lapsus xam nga luy lapsus hmm. mooy ma bëgg a wax xadi si laa dama am xadi loolu lapsus la hmm. langage bi moom moo traduire li nekk sama xel hmm. loolooy lapsus mais kii dafa insister mais mun a daf ko relancer mu ne en principe oui la loi d'amnistie elle est large en principe waaw mais c' est couvert par la loi d' amnistie parce que c' est large. ni la ko waxee loolu du lapsus. lapsus mooy nga bëgg a wax IGE ne IGF loolu lay lapsus. waaw parce que ñaari mooy jegante nañ mën nga am défaut de kii. Mm. la preuve après li muy waxaat yëpp da ngay gis mu andiwaat la bonne. Mm. donc lii moom mu def du lapsus. un mm. deuxièmement je d' accord avec maître Patrick Kabou. Ouais, avocat des fa de la famille de Diabadji. bëgg nañu déposer plainte mais ils ont raison. parce que lii du lapsus. juumul. ah mais bindaan na communiqué ba ne juum na mu ngi jégalu non non la utilisé ci communiqué bi non. waaw hmm. la waaw lapsus mooy ne mu jégalu. lapsus mooy. Hmm. ma bëgg a wax Khady Fall ma ne Khady Sylla loolooy lapsus. Hmm. dama juum teyuma ko mais kii dafa insister. c'était pose de waxu ko benn yoon waxul après si waxul wii rek mu jeex après non non xaw ma lu ma waxoon déedéet dafa wax ne la loi si elle est large. mais mun a relâché ko mu ne oui en principe c'est couvert par la loi d'amnistie jubul de loolu du njubte yow lan nga si jàngat te au final ne. ne jar na enquête moo ko pour trahir wala lan la non non euh, l'affaire euh, foog naa wax nañ ko fii sax affaire boobu mënul bokk ci amnistie léegi nag moom bu dee kon amnistie la kon donc c'est fait politique dañu génne la euh, la dimension politique de ces disparitions. même bu maître Patrick Kabou euh, deful woon plainte sax le procureur devrait s'autosaisir pour hmm. moom mu xam waaw xam moom ban complément d'information la ñu mën a jox Didier Badji kenn gisu ko ba léegi qu'est-ce qui moom mu ne c'est couvert par l'amnistie donc c'est lié à, à, à, à des manifestations nañu wax comment cette liaison a eu lieu lu mu ci xam hmm. nañu wax non mënul demee noonu saa ñooñu ay bakkan lañ hmm. ay njaboot lañ donc loolu noonu moom bu ko procureur woowul moom ci boppam moo war a jébal boppam wax ñu moom lan lan lan la euh, kii parce que en fait ce n'est pas lié à sa qualité de ministre donc il n'est pas immunisé ci côté boobu noonu il n'est hmm. plus ministre il n'a plus d'immunité il n'a plus de privilège de juridiction. fi ne nii bu ñu ko wooyee nii ordinaire bu ñëw wax une chose extraordinaire wax lu extraordinaire. kon na dem ci juridiction ordinaire pour mën a euh, seetal boppam wala ñu wax. moom mi fi nekkoon ministre de la justice. ah waaw tax lu waay di def nga ko xam ne kon. <laughs> ma ne xam ne adduna euh, day soppateeku ko Karim Diop woo. Mm. waaw ah. fatu ko. ah bon mu wax dafa garaaw. ah bon c'est il a dit des choses assez révélatrices de la disparition de ces deux gens na dem waxi ji bu wax ji lu mu xam ak naka la politique politico. Mm. ah parce que man de ba léegi maa ngi xaar ñi naka la ñu def. ba ñu ne disparaître nañ man léegi loolu ba léegi man mun mun. mun def ma ëllëg. d' accord Pape Ndiaye. Euh, waaw propos yi dégg nga ko. ak it coow li nga xam ne nii jot na ko daal di suscité. Mhm. Euh, ci wàll euh, comme ni ko mu Moussa waxee ndax yow da ngay bokk ak moom gis-gis ci ne lapsus la et que dafa juum. wala non man pour man du njuumte. lu tax pour man du njuumte pour man jamono yam koy wax il était ci li mu doon wax loolu moo doon position am ci jamono yooyu. parce que hmm. c' était dans le cadre d' émission. xamoon na thème yi nga xamante moom lañ ko fay posé. te il n'a pas été n'importe qui ci régime bu fay pour man du njuumte. loolu moo nekkoon position am jamono ko wax maintenant après déclaration rek il y a eu de bouclier boo xamante mm. peut-être conseillé nañ ko ne na na génn rectifier jubbanti jubbanti li nga xamante moom mooy mm-hmm. wax ji. en tout cas comme ni ko sénégalais yu bëri di sàkko comme ni ko famille victime yi également di sàkko. Mm-hmm. am na vraiment war nañ ci def ay enquête xool naka lañ koy leeralee mbir mi mbir mën a féete boor mhm. niñ ko amalee ci dossiers yi amagul enquête tam noonu lañ ko mën a amal ci ci ci dossiers yi nga xamante ne am na fi enquête ba pare mhm. te nga la waaye bu ñuy def enquête bi bés bu ñuy tijji dossier bi pour xoolaat di Badji ak Fulbert Sambou fan la kii man ngalawaay li may ñaan mooy mhm. ñu ratisser large maanaam mm. les auteurs et commanditaires bu dee am na ci enquête bi nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla mu bañ a comme ni ñu fi doon gisee ak mm. enquête yi par exemple affaire Fatoumata Matar Ndiaye xam nga ce qui s'est passé c'est sauf une enquête mhm. Mhm. parce que tey jii nii am na ay faits nouveaux qui commandent qui recommande même une révision du procès hmm. ñu tijjiwaat dossier bi parce que ñëpp xam ne am na fi ay firnde yu leer yu du Samba Sow kese ah am na ñeneen ñu ci tàq lan moo tax euh, woowuñu ah Samba Sow moom ci boppam ki rey faat ki ñu condamné ne moo rey Fatoumata Mantaan Ndiaye mhm. am na ay personnes yu mu cité lan moo tax justice woowul ñu ñu déglu leen en ñu ne soxna si rey nañ ko mu am ay témoins yu nekk ci quartier bi ne bu weesoo Samba Sow am na keneen ku ñu gisoon mu génn ci kër gi donc ce qui veut dire que amul benn coupable mais la justice ne s'est jamais intéressée à cette euh, deuxième personne là je ne comprends hmm. le principal accusé bi ñu indi atte ko na ko sute na ay tur tudd na ay tur am na ñu ngi tudd mais ne serait-ce qu'à de simple renseignement ñooñu dañ leen war a woo déglu leen hmm. parce que li leer la mort de Fatoumata Diatta ah bon? c'était un assassinat politique mm. et que Samba Sow n'est pas seul dans le dossier donc il doit y avoir une révision de procès pour leeral mbir mi ñu ñu tuddoon hmm. amaana jamono yooyu sax ça serait difficile parce que régime boobu ni mu doon doxee mooy ku bokk ci régime bi moom kenn du la laal mais régime boobu nekkatuñ fii ñooñu ci Samba Sow dund tey jii nii ñu ngi côté opposé nekkatuñ ci nguur régime donc seen comparaison seen convocation gën naa yomb ci ñi Samba Sow tuddoon am na ci ñoo xam ne jamono ay député la ñu woon Hmm. am ci ñoo xam ne ay ministre la woon am ci ñoo xam ne ay maire la ñu woon ah mais actuellement amatul benn immunité bu leen di protéger donc comme nii mu demee woon ci dossier Fatoumata Mata Dramé ngal la bu bu naree am enquête bu dee enquête dina am ci Didier ak Fulbert Sambou vraiment bu mu demee comme nii na doon enquête bu tëddee njaaxanaay enquête boo xam ne dañuy ratisser large enquête boo xam ne du ñu yem ci ay second couteau bàyyi li nga xamante ne ñoom ñooy ponkal yeeg les vrais mm-hmm. commanditaires ak ñeneen ñi nga mm-hmm. xamante ne ñoom ñoo mm-hmm. ñoom ñoo ñoom uh-huh. ñoo surtout sur sur surtout ça euh, ay crimes yoo xam ne nii wala luy am loo xam ne nii ça reste impuni euh, il faut aussi tamit ñu daal di cay euh, indi ay leeral ndaxte famille am soxla